dégg ngeen euh, kàddu yi nga xamante ne euh, moom la euh, Guy Marius Sagna yëkkati ki nga xam ne moom mooy Dame Mbodji aussi yëkkati ko jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy élection yi donc. sama saar la sama saar ne mu gaaw mu gaaw la moo fay. kii bi lan lay indi. voilà dégg ngeen kàddu bi mais gis nañ ne aussi euh, ñoom fu ñu dem rek ful bi topp leen. avancé avancé avancé avancé waaw lii ku doyul dara dootu la doy sénégalais yi génn massivement taxaw ak ñun wan ñu ñoo war ñu seen cofeel ci moom kii moom sama doom la ya waaw waa géew la effectivement effectivement ñun pour wax ak sénégalaise ak sénégalais yi wax leen ni ñun li ñu woote mooy élection Ousmane Sonko dialogul Ousmane Sonko dialogul ko euh, jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy élection yi donc. élection

topp leen. avancé avancé avancé avancé waaye gars yi yan gars yi ñu ngi bloqué lii ku mu doyul dara dootu la doy sénégalais yi génn massivement taxaw ak ñun wan ñu seen gis Sénégal moo nekk en danger instant ku jàpp ni xeex bi da nga war a toog sa néeg rek ne na bokkoo ci yaa ngi nax sa bopp ay liberté yi lañ lañ bafoué parce que boo demee ci déclaration universelle dans son article 16 nee nañ bépp boo xam ne respecté wuñu les droits les plus élémentaires on peut dire la séparation aussi des pouvoirs n'est pas déterminée dans point de constitution le président Macky Sall dafa war a xam ni réew mi moomu ko réew mi doonu ko dafa war a def li mu war a def dem mais mënul forfaiture bi élection par force. élection par force. élection am. jërëjëf jërëjëf. kenn du fi randal élection dañoo bëgg Macky xam ne mun na wax lu ko neex mun na def lu ko neex. mun na wax waxu amnistie mun na wax waxu dialogue waaye élection yi kenn du ko randal et que moom le 2 avril lay jeexal le 3 pare nañ ci moom bu ñu delloowul nguur gi dinañ ko déloger comme ni mu buggee woon déloger suñu baay suñu maam président Ablaye Wade le 3 bu ñu delloowul nguur gi dinañ taxawal un gouvernement un gouvernement d'union nationale de transition Macky pare na élection forte lépp fii ak le 2 avril ndaxte le 3 daf ñuy abal le 3 daf ñuy delloo suñu nguur le 3 day dem ñun élection la ñu le 25 février lañ ko bëgg élection day am élection day am élection day am élection day am